di liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall mm. waaw waaw loolu moo doonoon jataay bi mm. suñu Omar waaw loolu moo doonoon tamit digal bi loolu daal na na murid yi xam ne ne mm. ak ñi nga xam ne yéen a bokk daayira alal maam Cheikh Ibrahima Fall am nañ digal ci sëriñ am di moodu benn muy xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall lépp lu leen war ci lu taaral kër Cheikh Ibrahima Fall gi am nañu ndigal def ko waaw nañ ko def ànd na ci ak ñoom jox na leen ndigal loola kon alhamdulilah xanaa waaw mm-hmm. ah, ndigal li nga leen jox ñu man ko mm-hmm. waaw ba def loolu lu jiitu <laughs> la nga ci bëgg li jottaliwaat tuuti rek eh, mbégte moo xam ni day mel ni jataay bi fi ñu ko defee laata ñu jug day am la fi feeñ loo xam ni ah ndigal li ñu dégg rek bànneexoo ko moo ko waral dafa mel ni Seydina Omar dafa maa wax ni ma sëriñ Ngounda Fall mi nga xam ni moom la sëriñ waxoon mu woo ko jottali ko baat bi mu ànd ak moom wër kër gi dellu si fi sëriñ bi sëriñ bi ni ko kër gaa ngoog sëriñ ngu ne da ko ni liggéey bu toll noonu day mel ni du ma ko dégg di xool ba nit njëkk ma ca tàbbal wërsëgam moo tax Seydina Omar sëriñ Ngounda Fall moo barkeelu lii toll ci juróomi junni di doomi sëriñ bi am na murit yu nekk ci biir di waa benn fanub safar ñoom dañ ñu fay fekk di siyaar si sëriñ bi daa mel ñoom it ñoo la jox junni bii ni ñoo ko ci barkeeloo ñoom ba tey ci liggéey boobu waaye ba tey mel ni sëñ xaadim sëñ xaadim sàll amul sago ci yow gis naa ko sànq lu nuyoo mooy moo ñëw taxaw léegi ni liggéey boobu sëñam di joxe ma ne kenn du ma ci njëkk daal di jox li jox jox li junni boobu lépp ci biir jataa bi kon day mel ni soxna Diagne Cissé fi nga daaneele gis nga xéwal yi rek noonu lay daal di mel waaye ku raw raw ba faw ku ci raw raw ba faw lan doon wax daal naan koo xam ne jumaa ji dala rëccoon tey stade baa ngi waaye koo xam ne fondation kër gi dala rëccoon tey yeesal gaa ngi ku yeesal yees ku yeesal yees Seydina Omar dafa am ku ñuy wax Baye Daam Fall doomi Baye Daam Fall mu mag ma la ma àndoon sëñ mënu saa Fall ba ci sëñ Mourou Minta Baye Daam moomee ku jigoon sëñ Mourou Minta la nee na Cheikh moo ko daa wax ne ko daam mu ne ko Fall mu ne ko boo bëggee gis ko defaru xoolal koy defar koo gis mooy defar rek defaru na koo xam ne du xool kër sëñ bi seen fi génn mbuus muy naaw wala mu seen fi jàll mbalit wala mu seen fi ndox mu taa ca maasriwu ko sëñ Modou lu Fall nee na xoolal koo ko ca xam ne mooy ku defaru kon ndokk nag bi nga xamee ni ci defar la la sëriñ bi boo xamee ba woo doomam ji ne ko wool ma Omar nga ñëw mun la màcc ci biir la magam ñu baax ja waxoon soxna Diagne Cissé leeralaat ko sëñ Amdi Fall foofu la ne lan la sëñ Cheikh Jëmb def la woon bi nga toogee moom la sëñ Amdi njëkk def loo muy togg togg nga ma nopp mun a yeesalal ma kon di nga mën a togg ci loo bëgg loo bëgg moo yees dina yees alal ji daal ku ci bëgg ku ku ci bokk ci bëgg li sëriñ bi joxe nga am ci indil sa ndab daa woote nag woote boo gis moo indi leen ndab yi koo xam ne mënoo ñàkk indi sa ndab ca xam ne boo indee sa ndab sëriñ bi dina la ko dugal dara manqué fi fi ne mi ngi nuru lu wéet waaye lépp Seex Rafaa lañ ci biir loolu sama xalifa bu baax ba sëriñ Bay si la soxna jaañ si si xam na ko maa yi ñaan suñu borom mu guddal aw faram ci loolu ak biram danoo toog ci biir kër sëñ Seex jëm maak moom yóbbu xarit Tabaski neuf heures ci suba gisuñu kenn kon waxal ñu toog ba dix heures mooy sëñ sëñ bay jëkk moom yàgg mu fudd daal di jooy ma ne ko ma ëpp ëpp naa def dem ci soxna Mbaye si la mu jox ma ndox mu ñëw jox ko sëñ bay ni ma Moustapha mu ne waaw ma ne ko Fall mu ne lépp Cheikh na Fall ci biir kër gi te gisoo kenn koo waxal gisoo ku la gisoo ku la soññi Moustapha ma ne ko Fall mu ne ma sa bopp doo dem mhm. mooy sa imdi mi lépp Cheikh na Fall ci biir néeg bi du fekk kenn nag ci bureau ba nga nekk baa mu fekk la ci oto ya ngay dawal di la woo yaay amul xel farlu xam ni connexion sax boo ko dugalee li fekk jëndaatoo doo am connexion ca loolu fii dong la yem baatin dañ koy ràmpali wërsëg dañ koy fecc li wërsëg wu ñëw ca nga bañ mu dem jël tàkk di jox sëriñ bi sëriñ bi nag ko yomb ba jëfal la koo xam ne boo cofee dajeeg moom mu ngoor dajeeg yow kenn ku ne xam ne lu cof tuut tuut ngoor a kopp doole ngoor lu mu néew néew mat kaasu wit cof muntu weesu dara ca ñun li ñu yor nañu cof jox sëñ bi man mii di wax ak yow tàmbalee ci man waaye dëgg dëgg dëgg dëgg addiyee buñ ñu ko wonoon mu Cheikh Moustapha Fall lu ma nga sukkoon léegi muy sëñ Moustapha Mbar nee na buñ ñu wanoon yoolub addiya kenn dootul sol tubay kon daa mel ni lii de sëriñ bi sant bi nga jógee dangaa ngaa daan làmb électricien man la ab doomam a ngi fi de jarbaatam di doomi soxna Daba Fall muy sëñ Jili ba mi ngi nii bàyyi na lam jàppoon moom it ñëw fa yéene ànd ay yow bâtiment yi ba ni ko sëriñ am di bëgge nga wan ko ko mu defalee la ko noonu bokk yow ndigal li bokk yow ngërëm li mel na ne woo nga pentirkat bi jot naa ko nee naa ko boo ko mënee luyal alu Dakar fanaan si ndax su ma sañoon tey donte ba wéndalu du pentir la dañ koy rëdd ci miir bi ñu xam ne Omar baatu ndigal bi mu jot tey tàmbali na ko ba alxames ak jàmm nag lépp daj fi ñu bokk yeesal kër gi ba mu peq kon ñoo ngi woo réew mi ak bitim réew gaal gaa ngi daal ku bëgg mu yóbbaale la indi def ci bu ëllëgee nag gaal gi day teer waaye noonu lañ ko fas yéenee ànd ak moom liggéey bi du laal suuf benn yoon liggéey moom kanam la te dafay kawe ala kulli xaal mm-hmm. ah, kon nag li ñuy wax nag liggéey sëriñ bi ku ci jàpp mu dem ku ci jàppul mu dem mm-hmm. waaye jàpp ci nag mu dem demaale la dafa ëpp lépp dafa ëpp solo lépp mm-hmm. kon nag nañu fexe ba jamono junne saa su nañu amee pas-pasab Sidi Ibrahim Fall sunu waaja ah, murid bu mag ba te xam ne lépp loo xam ne am na ko ci sëriñ Touba ah, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Pastef moom moo ko ko may kon nag pas-pas boobee alali Cheikh Ibrahima nañ ko waaye nañ ko yokk bu baax baax xam ne liggéey bi mi ngi soog a door euh, bi nga xamante ni ki nga xam ne moom lañ àndaloon liggéey bi di Serigne Cheikh Fall jëmb yàlla yàlla doole ay leeram tas ci barkeem wane na ginnaaw nañu xam ne ko liggéey bi mi ngi soog a door jamono jii nag ci la liggéey bi di soog di tàmbali buñ daan def benn nañu xam ne téeméer lañ fa séenee def lépp loo xamante ni bëgguk sëriñ bi la rek bu bu ñu ko yëgee incha allah rabbi rek danañ ñu mën kon nag dañ koy def jamono ju ne à saa su ne ñu ngi ciy soññ nag mboolem waa réew mi fu ñu mën a nekk waaye waa biti réew fu ñu mën a nekk ñoom it ñu ngi leen di woo di leen soññ bu baax a baax ci liggéey bi ndax kër gi suñu kër la ñun ñëpp. waaye ñu ngi jaajëfal baax nag waa alal ji alal Cheikh Ibra Fall njiital Seydina Omar Nour Daareni seen pasef waaye seen taxawaay bu rafet ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi ndax duñu sonn duñu tàyyi ñu fa ñu nekk ndigal rek lañu fay xaar ndigal rek ndax nee leen daara noppalu daara ji amul dallu amul noppalu dalluwaay bi benn lay doon muy bàmmeel mooy dalluwaay ba yàlla na yeex kon nag fii ak di rek ñi ngi nekk jamono duñu dallu benn yoon ndigal lu ñëw rek nañu xam ne beneen ndigal ci wet gi bala muy jeex beneen dana tegu te du yàq dara nag ci liggéey bi nga xamante ni moom lañ dëgmal muy tubaax Tuuba 18 safar yónnee seen addi ci numéro Orange Money wala numéro Wave yi euh, lu ci mel ne euh, bu fekkee Orange Money la wala Wave la man mën nañ koy yónnee ci 78 534 89 11 78 534 89 11 ci turu Omar Seck euh, wala euh, ci turu Diagne Cissé ci 77 649 95 88 77 649 95 88 moom it Orange Money la waaye Wave la wala benn transfert boo xam ne euh, jublu na mbokki taalibe yi rek buñ ko ci yónnee incha allahu rabbi dinañ ci mën a jot ci adde jooju ngir mën a defal li nga xamante ni moom mooy kër gi dañ ko fas yéene tàmbali ni ki alxames bi ñu jëm ndax balay samedi bi incha allahu rabbi war na euh, lépp yegg li nga xamante noonu la ko euh, sëriñ bi bëggee ndax li nga xam ne moo ñu fi indi jamono te bàyyi ñu fi muy liggéeyal euh, ku tedd kii di ñaari jëmu kenn Cheikh du Bamba Khadim Rasoul suñu yaakaar tey ëllëg waaye Sidi Ibrahim Fall suñu waajur murid bu mag ba jërëjëfati ji waaw ah, wax naan jërëjëfati Serigne Cheikh Fall jëmbu jërëjëfati Serigne Cheikh Fall jëmbu mm-hmm. jërëjëfati Serigne Cheikh Fall jëmbu mm-hmm. maa ngi koy ñaanal bu baax yàlla doolu yar leeram bak si Ibrahima Fall eh, di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gannaaw ba ma ñaanalee Serigne Mountakha Mbacké ma yàgg fi loolu te di ñaanal Serigne Menda te di ko santaat bu wér di wax jërëjëfati jëfati boo déggee kàddu gi xam ne xol bi fees na ndax limat ma wax sax Serigne Moustapha wax nga ko sëñ Ngounde mi lépp waaye dañuy santaat bu baax ndax daa am loo xam ne tawfeexu sëriñ bi waaye du du jàmbaar ndax waaye dañuy bàyyi xel la sëriñ see waxoon ne naan dimbali ma ñëpp xam ne dimbali na leen wane na mm-hmm. woon ak benn lañ ndax sëñ see jëm fa yam ak ñun fa am di tàmbali ak ñun mm-hmm. ndax koroog bi di ñibbi àjjana mm-hmm. mi fekk ci ndigalam mooy añ yooyu mu doon toggaloo ca alarba ga xam ni fa ñuy feesa gàtt ba fa ñu ndigali fekk kon ba ñëwee suñu am déet la mu njëkk a def mooy togg ah. kon loolu ak cant la eh, di nuyu waa àlli Cheikh Rafal gépp di jël seen nuyoo ak seen ziar di ko ci loxol soxna Jalaba Cissé mu mm-hmm. àggale ko ci mboolem ko si jotaay bi di nuyu jëwriñu réew mi ñu nekk mm-hmm. di Baye Madi Kébé eh, ak ñi fi nekkal ñëpp di nuyu jëwriñu bitim réew mm-hmm. sëñ Mor Ndiaye ak ñi fa nekkal ñëpp tey nuyu bu baax. Mm-hmm. sëñ Saliou mii sëñ sëñ Gonda mii. ci sama wetu ndeyjoor. waaye sëñ Moussa Sylla la. Mm-hmm. maa ngi lay jaajëfal bu baax. ndax tey bi ma xëyee fa ma doon xewloo ci ndekk yi. Mm-hmm. ma sëñ bi woowee sëñ Gonda. ne ma Omar Fane ne ko maa ngi bi. wallahi sama yaay mi ngi naan ma defal ndànk boo gaañoo nooy wujjee sëñ bi. Mm. ndax booba loola damaa jomb ci laa daw ba agsi ma dugg ci biir néeg bi fekk fa sëñ bi dugal ma la ma mën a wax ci rajo bi mhm. li nga wax lépp démb dégg naa ko ah. waaye nee li nga bëgg di ko am loolu laa mën a wax la ci des moom mhm. gasaay bala mhm. sant nañ bu wér nag ci ne suuti ci laato ci saal bi suñ am suñ saal yi muy génn ne ma suñ bi ne am nañ ndigal wër kër gi ñu wër yëpp xool mu ne ndigal li ñu yeesal ko wallaahi tey dama waxoon damay wooteeg sabar jar na wooteeg sabar di ko fecc ma ba suba ndax ndax loolu loolu rek moo ñu bàyyi ñun ci ci ci ci dënd bi sëñ bi nee na ak fan la seerafal nee na mhm. sëñ Tuubaa nee na ak fan la rek loolu rek mooy mooy bu ma génnee nag ci laa la woo sëñ Musaa daan ne ah, sëñ bi kat wóolu na ma jox na ndigal nangam jox ko àll si Fall gépp ci nga ne ma nañ ànd ci sëñ Mbar bañ àgg gis kaddu yam wax yéen a wax àll si Fall àll si Fall nag uh-huh. borom sañ koo jëfandikoo ci waxtu mu ko neexee ak na mu ko neexee daane comme àll si Fall ngeen borom soxal na ko jug leen dem ca loola song leen loolu jàpp ne daa rafet def leen Ah, waaw kaddu yooyu la wax waaw ci noonu la ci la ko suñu mëgee ñangi si suñu sa jëmb yegee mu bég co lool ndax ci san suñu sa jëmb Fall moom daan na xam naa ne xamoon naa ab defaram kanam rek la jëm kon loolu ak cant la waaye liggéey bi liñ ciy fas mm-hmm. mooy ni ko waxee mm-hmm. yes gi ñu ngi ñaan mm-hmm. sëriñ am di muudi menda am kat nu fanweeri at li ma ñaan suñu sa jëmb di ko ñaan si mu ndaxaa laay dool di ñaan mu kii nu gudd fan kii maa na gudd fan kat amagul ci yoonu murit te war naa mën a am kat ko yàlla na feeñ ci diggante Sëriñ Amdi ak Sëriñ Muntaxa Mbàkke euh, sëñ bi dund téeméer at yu teg te tàmbali tey doole Cheikh Rafal ñi fas ci liggéey bii mbooleem bu ko liggéeyee ba sëñ bi ni ñu ko bëggee mhm. ñooñu it bu ñu ko santee bañ def ko pare mhm. moom it li ñu koy sant nañu ko defal mooy mu yàgg fii comme bu ñu santee ñu ba mu àgg mhm. dañ ko fi te wér ndax ñoom kat bu bëggee yàgg yàgg ah, kon yàgg gi fii mooy suñu njariñ kon ñu ngi woo ñëpp nag ah, damaa wax nag si kanam sëñ bi daana wax ne ko ah, ku ne xare wax ji mën naa bañ a bëri fii daana boo ab xare lañ muy ndigal lii mm-hmm. fii daana guñ ko wax ji bañ bari eh, ni ko sëriñ ñu bëggee mm-hmm. nañ fexe def lu kaw njortu loola mm-hmm. mooy peinture bi fi ne woon jëpp ci kër gi na na na lépp sensé waat ci weneen peinture ndax moos bi fi nekkoon fi nekkaat waaye na wuyees ñu waat Euh, karo yi fi nekk li ñu ci war a nañ ko di dindi fas fi karo euh, ba ci bâtiment yeeg plafond yeeg yëpp ah, clim yi fi mu remonté woog yëpp na kër gi mel ne waaw kër si kër kër gi ñu ko soog defar yes googu ñëpp moom pare sëkk sëkk kër gépp defar war defar lépp saal war a am ay mokal ñu def ko fa war a am ay photo ñu def ko ni nga waxee rek ku am clim andil ku am salon andil ko am ventilo andil ko am lampe yi méngoog jamono andil ku am peinture andil ku am suufit soxal nañ ko fa ne dañuy sëkk kër gi dafa yees lépp yees ñu ànd yees ci doole Cheikh Rafal ñu ngi woo ñëpp nag kon damay jamale kàddu foofu